musicien bi nga xamante ni tey moo taxaw fii ñoom ñoo def sensibilisation bi ñoom ñoo woy corona bi ñoom ñoo fexe ba askan wi xam ni kat euh, feebar bi am na ba ku ci nekk mën a def sey prévention kon tey ñooñu ñoo nekk ci njàqare ñooñu ñoom ñoo nekk ci tiis ñooñu ñoom ñoo am ay naqar euh, di wax ni nag euh, ñu ngi tàllal suñu loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorités yi ñu jël ay matuwaay ndaxte bu ñu demee ba bàyyi waa marché ñuy liggéey bàyyi transport muy daw war nañu mën a xool yan solution la ñu mën a jël pour mën cee waxtaan ak musiciens yi ñu dem retourner seen i liggéey ndax tey jii catastrophe la ñuy dund ndax suñu courant yi ñu ngi koy coupé ndox waxi nopp même dépense boo xam ne dañu koy jox suñu njaboot yi amuñu ko bu ñu feebaree ndax koo xam ne dafa amoon vendredi ak samedi di ci liggéey amaana ba muy liggéey dafay am ay jafe-jafe waxatuma laa nag suñ ko togloowee nekk liggéeyatoo yaakaar naa ne kooku difficulté lay dund ñu bëggoon nag yéen waa autorités yi ngeen xool yan solution ngeen di jël ngeen mën a jàppale artistes suñu dem jouer ji ndax soo leen xoolee tey ji suñu jabar yi ñu ngi am ak ñun problème ndaxte dara matatul kon donc daal vraiment ñu ngi dund difficulté et mu doon boo am na ci ñoo xamante ni ñu ngi ñibbiwaat seen kër papa yi dem toog parce que tamit vraiment boo toogee yow amoo loo lekk sa njaboot amuñ lu ñu lekk da ngay da ngay delluwaat fa nga jóge woon ndax tey jii ñun ñàq ñàquñu mais dañu tere dem liggéey. tey jii du ñu wax ni état deful dara. mais nag li mu def mënoon na def lu ëpp loolu ndax ko toogloo 3 mois liggéeyaloo ko nga dimbalee ko benn som boo xam te ni vraiment c'est dérisoire loolu day nekk lu compliqué ndax amaana sax som bi bu mu ñëwee dafa tombeek mu nekk veille tabaski ñu bëri seen problème mënu sax la seen i problème dañu ne Covid bi dafay bañ rassemblement n'est-ce pas te boo xoolee musicien bi nga xamante ni day tëgg soirée boo xoolee durée bi muy def ci boîte bi durée bu gàtt la mais transport c'est toute une journée nga ñëw marché même chose boo xoolee marché 6 heures du matin la ba 21 heures te yaakaar naa ne foofu rassemblement moo fa am kon nañu fexee ba bàyyi noonu ñuy liggéey vraiment ñun am nañ ay solution yu mën a def pour dem dellu suñuy liggéey. da ngay dem jouer ñëw participer pour sa dimbali sa jëkkër te loolu amatuñ ko góor ñi nii nii tey ñu bëri seen jabar a ngi mer dem seen kër ñu ci bëri dañuy yeewu ci këru famille war a joxe dépense amuñu ko benn jour ñaari jour donc xam nga dañ lay xoole benn façon bët. te yow tey mënoo dem sàcc mënoo dem def dara donc te ci musique bi la am di ci dundal njaboot yi donc muy ñun muy ñu góor muy ñun jigéen ñi ak ñoom ñu góor ñi donc ñun xam nañ lu baax lu suñu jëkkër yi daj donc te dañ leen doon soutenir dañ ñu ngi jaay suñuy or pour mën a dimbali suñuy njaboot ñu ngi ñuy génnee suñu kër yi gaz sax suñ ko su suñu jëkkër yi amul ñun dañu am problème pour pour lijjanti ko waaw donc difficulté yu bëri daal ñu ngi koy laal ci ci ci famille bi daal. ñu ñaan nguur gi nag mu bàyyi ñu ñu liggéey suñu jëkkër yi am fu ñu jàpp ñu ñu am fu ñu jàpp di leen dimbali waaw loolu daal la ñuy ñaan kii ndax ñoom it ay njaboot lañu xam nañ li njaboot yi ja jànkonteel donc suñu xoolee seen bopp rek war nañu xam ñun ñi jigéen ñi lan ak góor ñi lan la ñuy jànkonteel seen biir kër yi. sooy seet Covid bi ñu dong la laal laalu feneen parce que ñëpp ngi circulé ñëpp ngi kii même boîte yi même restaurant yaa ngi jaay mais ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci boîte yi bon am nañu problème parce que mënuñu dem liggéey def nañ trois mois defaat leen beneen 3 mois bientôt 7 mois waaw ah, mu métti lool ci ñun nag.